salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Haaj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara. jërëjëf oustaz aywa ci yóbbal bi. waaw Haaj Babacar yóbbal bi tey jii dafay ñëw rekk ci benn njariñ bu nga xam ne mag ñi expérimenté nañ ko maanaam tajriba nañ ko ba sunu boroom wuyu leen ci ñu bàyyi kook seen njaboot. muy juróom ñetti alam nashrah wala juróom. benn fukki alam nashra ak juróom benn wala juróom ñeen fukki alam nashra ak ñaar wala téeméeri alam nashra ak ñett bu mu ci mën a doon nga jël ko juróom ñett maanaam 8 66 92 ak 103 boo ko jëlee jàng ko yaa xam noo euh, euh, heure boo koy jàng mais soo ko jàngee ba pare nga teg ci ñaan bi li tax ngay ñaan ñaan bi bu dee loo ragal la bu dee lu la jafe la bu dee loo yóotu sunu borom dina la ko defal surtout nag bu nekkee juróom-ñett nga saxal ko ginnaaw julli suba bu nekk nga def ko soo ko defee nga wax allahumma inni asaluka al yusra baada al usri wal faraja baada al karbi war raxaa baada shiddati hmm. après nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Haj Babacar nañ ko mos ba xam lan lay saf. deena Oustaz Mor jaajëf.